jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi démb moo nekkoon le 9 février 2020 fële ci arène nationale suñu papa Khadim Samb woon ñu fa boole fa ay naataangoo yu bari waaye grand combat bi doxoon ci diggante Eumeu seen Junior ak Bour mu bawal ndam li Eumeu Sène Junior la ko yàlla suñu borom jox waaye làmb ji ci kaw làmb ji xeex ba metti na bëre neex na. làmb ja kontaan nañ lu ñu metti woon ci diggante alin Seye 2 ak ñaq jariñu Eumeu Sène junior ak Bour Sine fay nañu ko Eumeu Sène maa ngi lay nuyu. sori maa lay fay jëla siyaar bu wér di sant yàlla bu baax julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur xam nga sant suñu ñaari waajur sant sama sëriñ suñu moroom lay faal di ñaan yàlla yokki leeram tas ñu si barkeem di sant waa Géejawaay di sant waa Njaareem aussi. di sant waa kër gii ma toog tey jii muy sama papa Ousmane Kane maître di siyaar bu baax a baax a baax waaw may papa lañ su lépp lañ daal maa leen di sant bu baax a baax di leen nuyu di leen jox sama di sant ñi ma àndal ñi nga xamante ni làmb yëpp ba depuis làmb ji ba tey ñoom lay àndal waaw may mag rek samay xarit ñoo ci nekk maa ñoom ñoo xaacandoo dóorandoo suñu borom defal ñu ndam tey sant bu baax a baax a baax aussi tamit di nuyu waa Njaareem bu baax baax ak waa Ginnaaw Raay. Eh. Ama seen komba bi. Euh, dañ laa gëj a gis ci làmb kañ nga gëj a bëre. non benn yoon laa def année blanche dama bëri limousine après année bi ma def année blanche waaye ren laa bëriwaat mais ku ñu mu bari de. waaw ah, année blanche nga def. waaw daaw laa def maa Cobra taxawoon na mais dafa yàqu. yàqu. yaa kan moo ci bëggoon sa morom yow yaa ko choisir wala moom moo la choisir. non non combat bi man ak kii lañ doon dox euh, comment dire que sax kéwél maa kéwél la xaalis am bëggoon xam nga antuwul rek buur ndagee ci làng gi ñëw ne nañ ma jox. waaw ma ne ko batir man arab ah, laa amul ma njariñ quoi na jël ñu bëre làmb la rek ay nekk fi maa raw kii wala raw ma kii yooyu amul benn njariñ quoi am anyway man rawal ma loolu lañ bëre rek quoi. da ngaa jàppoon ne ay naataangoo lañ daa bëggoon bokk ci lim bi nga ne xaaral ma boole ko ci. waaw moom dafa gëmoon ne moo mën man tamit ma gëm ne mën naa ko daan rek xam nga loolu moo ñu boole xam nga defuma yàlla lu tax mu may ma ndam aussi moom tamit deful yàlla lu tax mu xañ ko ndam xam nga suñu borom moo dogal ne maa war a am ndam ci kawam ma koy ñaanal yàlla prochain combat bu bëreewul ak ku nga xamante ni su ma njët la yàlla ko yàlla may ndam waaye. combat bi ñaata weer nga ko bi 3 mois la juste ah 3 mois la parce que période tabaski lañ ko waxaale woon. xam nga bi ñu waaj tabaski fekk fekk ma ma doon jaayee xar doon def opération ci période boobu la taxaw daal fekk ci gétt doon wanalee ñun ñëpp waaw ak waa Bawol yëpp ikir Bawol yëpp maa leen di siyaar leen nuyu de passage fa lañ doon wanalee fa la combat bi taxawee woon ba après avance avance ñoo yokkoon génn na mais après lépp génn na xam nga ba tey ji jàll na xam nga lu ne suñu ginnaaw la dañuy sant bu baax a baax. nga dugg si ci làmb ja ñu gis beneen Eumeu seen junior lan la gëm-gëm. wala dafa da ñëwoon am loo bëgg a wane si wala daa loo doon jël si ci làmb ji. bu la ñëpp bu la ñëpp tuflee da ngay tooy combat bi dama gis ni ñëpp wuyu si ma ni ñëpp ñoo jàppale si ma. xam nga ma ne il est temps nag xam nga ma génneel nekk sama yaram kaa lépp génnul sax mais ma ne il est temps ma génneel nekk sama yaram moo waral ma ñëwee ak beneen façon xam nga mais na lu xamante moom naturel bi la ci moom kaf bi la ci man mënu ma ko dindi xam nga mais ma ñëw ma ñëw indi ak beneen ñit daal ak beneen nit ñëw fecc ba mu neex xam nga ambiance gérer sama combat xam nga ba suñ borom defal li keroog géejawaay gépp laa gis ci ci ci sa ginnaaw rawatina waa écurie Mor Fadam gépp waaw dama leen di nuyu passage di leen sante ko di Mor Fadam ci dalee course yu ngéylum xam nga Père Mao Sar Sari Gora Fall ñoom ñëpp ma leen bu baax a baax a baax ak président bi Pathé Sylla xam nga di nuyu aussi euh, suñu ménager Père Djili maa ngi nuyu bu baax a baax di siyaar suma mbokku mbër yëpp yëpp yëpp bàyyiwuma kenn su ma wax ne ñun ñëpp neen topp ci ginnaaw guy gi ñu liggéey xam nga yàlla suñu borom suturaal na comme suñu papa Mor jóge nañu fi bàyyi ñu fi te lu ñu fi bàyyi patrimoine la ñun ñëpp ñoo ko moom xam nga ñu liggéey ci liggéey bu rafet xam nga te yéen a xool yi xool yëpp tàpp ñu tàpp jàpp ko mu doon benn yàlla lu nañ jàppale incha allah bu soobee yàlla. Eh. ñu dellu si waat ci combat bi tuuti arbitre bi sifflé nga dox ci kaw Bour Sine mun nga maa expliquer nu ngeen bëree ci combat bi ba nga daan ko. waaw arbitre dafa sifflé mu déglu ko tuuti ñu léwtoo léwtoo waat xam nga léwtoo Samba yaa ngaan tuuti mu dóor mu ko dal xam nga cette fois yi ma mel na ko encaissé wul ko continuer def li ma bëgg a def ba tey continuer samay léwtoo ba sama heure ma dóor xam nga ci la ñu xeexee maag moom xeex bu tàng weccunte ay coup xam nga ma ërtal ko mu arrière ma dawaat topp ko taf ko ñu jàppante xam nga toog lu yàgg xam nga mu ba ma mu génn saako yi ma xam ne kii maa ko gën a décidé parce que ñu boo ba ma xeex mu rek waaw ma xam ne man kii maa gën a décidé quoi ci la arbitre ñëwaat nag ma ne ko làmb ji na jeex waaye maa gën a pare. gis naa ci biir léeto bi nga door ko benn arrêt de droit bu dal sentir nga ni dal. waaw sentir naa dal na mais dafa taxawul dama ko dóor kuubu dal mais dafa taxawul xam nga ay poids lañ ñu naan ñëpp xam nga mais tey jii dàq mbër wóorul dàq mbër wóorul parce que lu ne xaj naa ci moo tax ma ko sentir ma dóor ko kuubu dal daw ërtal ko mu daw pousse foofu yëpp noonu ma diree ko waat ñëw ñu jàppante ma dural ko éperkil xam nga si sigwaat muy fay ma raw dajak moom jàpp ko xam nga mel ni ku dugg di ko yenu mu rasu loolu ma wàcc daw pivoté ak moom mu tëdd Uh-huh. xam naa ni jël tànk bokk na ci bëre boo xamante ni macha allah koo ko def féete na mais bi nga jëlee tànkam ci biir bi may bi may reporté combat bi maa ngi naan ko Bour Sine Eumeu Sène yegg na la fa sori doo ci génn waaye ci biir jàpp boobu nga jàpp tànkam nan nga maîtriser Bour Sine ba daan ko ci. xam naa ne moom buy dóor xam nga buy dóor day dóor ba sëgg te mbër moom soo ko ñemee rek pour nga song ko du jafe champion la nag waa mbër la ndaanaan la maa ngi ko siyaar di ko ñaanal jàmm. mais xam nga mbër soo ko ñemee pour nga song ko lu jafe quoi parce que nit boo ko xoolee rek di nga mën a song di nga mën a dugg ci ci sang quoi xam nga noonu la fa demee mais du dara xam nga suñu borom moo ànd ak ñun rek ñu a am ndam mais du suñu njàmbaar du suñu dara. mën nga wax Bour ban erreur la def ma nga daan ko. waaw erreur bu mu def mooy que daf ma jël jàpp ne maa ko mag jàpp ne moo mën erreur boobu la def te xam naa ne bu fekkee maa ko mag tamit barewul bu fekkee maa ko mag tamit barewul. parce que man ci laa dugg sama 31 ans. damaa teel a nag. damaa teel tur ci làmb. ku bëreeg ay kaw Cissé mbëri ndaanaan yu bëri sama jamono maa leen fay bari ci Serval. fracture moo ma sonaloon damm. moo taxoon sama làmb xaw a am ay sooxe tuuti te lépp sant yàlla suñu borom moo ma teg. mais dañuy jàpp ne moom mag la mais maguma leen mais nañ ma jàppee mag mi rek tawfeex ku ma ciy bëreel def ma mag ba làmb ci jàll suñu jàppantee doo ma doole doo gën a diis te fii ak sonn sonn. boo jeexul du ma jeex dañuy gérer ba suba ma ak waaw. ci biir wax ji maa ngi naan combat bi bu yàggee avantage Bour Sine la waaye dafa mel ni dama juum ci côté boobu ndax jàpp naa ne yaa ko ëpp poids làmb ji lu mu doon gën a dem gasoil nga lu muy gën a di dem ngay gën di tàng. juumoo sax parce xam nga. analyse la rek ñi làmb moom li ñuy wax naan damay déglu benn paa muy wax naan làmb ki lu ko gën a xam mooy ki bàyyi ba la leen di jot mu commentaire. Mm. mais tout le temps ki nga xamante ni day commentaire samedi bu fekkee làmb ji dimanche la am na mille sens pour juum. Mm. ndax làmb xam nga reenu njàmb la waaye tout le temps fa mu gën a sewee fa lay demee. Mm. des fois mu nga ñëw jar na sigal nga ne lii mooy am lay am. xam nga mais pour si man xamoon naa ne feeg jeexul du ma jeex. waaw amoon naa blessure nag ci biir combat bi avant combat ci épaule moo waral maay dégg Mourou Mbaye sax ci benn vidéo mu naan Eumeu seen benn loxo bëriwul mais sama épaule bi da doon métti maa man décidé dama ko doon sóoraale bu baax a baax pour mu yëngatuwaat ci làmb ji te bëggoon naa sauver combat bi man bëggu moo làmb ji yàqu boobu xanaa loxo gos bi la. loxo gauche bi la woon. Ah, parce que maa ngi maa ngi seetlu loxo gos bi mais loxo droite bi rek moo doon dox. waaw fii la woon day métti sax. déchirure la woon xam nga maa ci gaañu woon maa ngi ñambaar ñu doon contact maa ngi ko nuyu de passage moom Mbaye Dine ak bara yëpp ak suma boy igri bi yëpp xam nga bébé guy gi nga jaatu faram ñoom ñëpp maa leen di siyaar booy yëpp maa leen di siyaar sonn nañ ci combat trop buusito aussi maa ngi koy siyaar bu baax a baax safara Moussa Mbuub ñoom ñëpp maa leen di nuyu de passage di leen baalu àq bu baax a baax waaw xam nga contact la woon ma gaañu après xam nga génn combat bi ci des lépp xamul ma ko yeggalee corde corde laa ko yeggalee defaatuma dara bi ma gaañoo dama doon corde rek corde rek corde rek. kañ ci combat bi. bi combat bi desee une semaine. ji la ko foofu tamit toog naa presque lu mat 15 jours yaakaar na 15 jours contact gu ma ndax dama amoon ay taab combat bu méttiwoon la ci man cest à góor dalul yuuxu quoi mais combat bu méttiwoon la ci man waaw combat bu la ci man dama ñaari taab yu métti fii ñaari taab yu métti mun ma ci woon contact sax tëdd normal sax mun ma ko woon. Eh, bi taab bi dañuy après la reprendre entraînement une semaine aha amaat blessure moo waatee blessure ma ne naa gérer rek coolu Ah, waaw léegi ma toog sama kër di kordu rek. kordu kordu rek parce que bëggatuma def dara lu may gaañ. ci combat bi bëggatuma def dara lu may gaañ. taa bi déchirure yi est jàppoon ni def def la woon ci combat bi. non sax parce que Serapha ndax li ma gëmoon mooy que xam nga li ma gëmoon xam li ma gëmoon mooy que xam nga dama doon contact ak suma nawle xam nga. ñu dem lamb la mun nga bañ a préparer combat sax nga gaañu parce que déchirure la rek après ma dem ñu bindal ma ay garab xam nga ma jël garab yi naan ko muy sedd ndànk-ndànk man a garab yi baax na ma dem xam nga jëlaat jël naan ko normalement di récupérer di cordon récupération cordon rek laa koy galee oui moo tax sama biir bi xaw a rëy sax mais wax dëgg yàlla lépp sama lépp sama yaram dafa setoon wecc mais xam nga gëj a entraîné bi ak bu la yenn blessure moo waral mu demee noonu. waaw mooy nuyu tamit xam nga ñi ma xale yi ma àndal ñëpp suma ma mënoon lim seen tur ñoom ñëpp tey dama ciy jaar. waaw mais dinaa lim ñaari tur rek xam nga muy Viekane ak Jooj son nañ ci combat bi trop trop trop ak Abdou Karim maa ngi koy siyaar bu a baax a baax a baax. mais li ñu jaaxal li ñu mooy dañu gis mbër yëpp seen open press mais gisuñu open press Alioune Seye junior euh, Eumeu Sène junior fan nga ko defee. waaw loolu nag dinaa ci sawar pour leeral ci damay gis géewaay ñoo xamante ne sa dafa jël open press bi yóbbu ko Jurbel xam nga de ba pare dem dem dem ngémboo ji fee wala dem ngeen demewul noonu laa ma ji dama ci soxla woon discret rek moo tax ma dem ginnaaw raay ngémboo fa xam nga bu loolu weesoo mooy que boy yi ku ci ak booy Jurbel yi ñoom xam nga ay naar yi ñoom ñoo jël xam nga organiser benn affaire nag ñoom dañoo bugg mën a fekk leen foofu mais man du loo xamante ne mën naa ko def du loo xam ñoom ñoo ko programmé ay mbay sàmba gi maara affaire yoon ak Ali Seck mi xam nga mu ñoo fekk leen fa xam nga ñu def lu nice aussi tamit mbëru Jurbel yëpp génn ma leen di nuyu de passage ku ci mel ne Jordan Siteu xam nga Hercule ma Mandione muy ndigal ñoom ñëpp boo yëpp maa ngi sant ñoom ñëpp ñu génn xam nga jàpp nañ bu baax a baax a baax a baax di nuyu sama frère aussi Zal maa di sant bu baax a baax di nuyu ñëpp daal sant Paa bu Ndaw bëggee waat naar defeyan bi xam nga ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp sant bu baax a baax Seck Ali sama jarbaat nuyu naa ñëpp sant naa ñëpp daal ngeen man a yéen ñoo far lu ngeen bëgg ci ñun day yomb xam nga su comme si tey ñun bu ñu leen soxlaa da ngeen di jokk te da ngeen ciy sawar waaw comme tey jii fu lu ñu jàpp jàpp jàpp ak lu ñu xat xat xat xat xat ma woowee rek mu ne ko ñëwal amul problème parce que même bu dara. xam nga ñoo bokk foo xamante ni ñu fa lañ gën a see àdduna muy jurbel waaw kon dara mënu ko jafe ci man lu mu bëgg rek barki Serigne Fall caar dara ko yomb ci man bu soobee yàlla waaw. suñu mbokk internet di ñooñu doon laaj lu tax demoo leen ci Eumeu Sène Junior lu tax demoo leen ci Eumeu Sène Junior ah yëguñu ko waaye lépp luñ yëgul sax buñ ko déggoon ci ci àll bi dinañ ñëw parce que ku bokk ci gétt gi rek naan ci meew. dëgg la mais open presse bi sax xam nga loolu du woon open presse sax xam nga affaire wu kii loo xam ko defoon pour woo woote waa Diourbel yi ñu génn xam nga comme ñun ñi am nañ combat gars yi waaw gars yi gën a bàyyi xel combat bi te dëgg naa xam nga bi làmb ci jàllee Diourbel foofu sànni mbaatu mu tag ñëpp a génn waaw booy bi mi ngi image yi. xam naa bu ñu soxloon sax dina ko mën a jox moom waaw si tam ngay image yi wax dëgg yàlla xam moom ba leen di ma saw coono waa Jurbel yëpp di leen baalu àq xam nga benn ndongo bu xeebu la rek xam nga loolu suñu borom xam mooy loolu noonu suñu borom. borom moo moo mooy doxalee noonu mais ñun ay dongo yi xeebu loolu sax amaana mënuñu ko am waaw ndax Jurbel moom tuuti nañ ci génne leen waaw mais dañu sant yàlla tamit di jégaluwaat ñëpp rek di baaluwaat ak bu baax a baax a baax di nuyu pompe commissaire bu baax a baax di nuyu pompet aussi waaw sumay xarit lañ ñoom tamit samay gaayan kër lañ waaw ma leen di siyaar bu wér a wér a wér. Mhm. jóge nga ci Bour Sine Eumeu Sène fan la jëm. waaw ku ma suma saf booleel rek instant bi xam nga sikkim laa rek gëstoo ma yóbbaale. gëstoo la yóbbu démb ci làmb ja démb ja yaa def def lépp de yaa xeex yaa bëri. waaw gëstoo ma yóbbu bu ma. gis waaw combat gëstoo la yóbbaale. waaw mooy waral nga gis lii dama daan dégg la dëgg mu naan nit soo amee kilifa des na la ñaat waaye deesu la rendi waaw dama topp samay ginnaaw kilifa rek. ba ci stade bi ñu ne ma doxaleel nii awel nii awel nii mënuma dara nañ maa teg yoon rek waaw xam nga ma ñëw suñu borom defal ma taw tawféex ñoom ñoo ma gën a kontaan sax barki sëriñ Bamba ndax boo xoolee ay magum jëm ko ci mën a permanent ak ay ngéelub ñooñu mënuñoo 100 mètres xamuñu li 100 mètres daw fekk ma ci géej bi kon ñooñu bég nañ xam nga ma leen di nuyu di leen siyaar di ñaan yàlla yàggal seen taxawaay am aussi tamit may wax ne suñu baay boo Mor Fadam naan daanaka wàllu rek ñu ñaan yàlla xaar ko àjjana ci barki Seydina Mohamed waaw moo waral démb bu ñuy tëgg Mor Fadam mii mooy suñu mbër ma ne déedéet Mor Fadam mii mooy suñu baay xam nga manqué nañu trop démb manqué nañu trop mais dañuy sant yàlla bu baax ndax batale nañu batale nañu rafetal na ginnaawam ba mu rafet waaw ñu koy ñaan yàlla suñu borom xaar ko àjjana ci barki maam Seraval waaw mbégte rek. bi nga bi nga wéetee Bour ci digg gis naa ngeen taxaw fa ab diir loo ko doon wax. waaw xam naa defet man xam naa defet ndax mus naa daanu xam naa victoire ndax mos naa am ndam bi ak suma bi di am dafa wax benn wax bu doy waar maanaam ñu ñëpp ay jullit lañ ay góor lañ bu làmb weesu ñu ñëpp ay góor lañ sama yaram dafa daaw moo tax ma tim ko naan ko baal ma àq. mu la wax. non wax xam nga. aduna moo tax ma ko naan ko baal ma naa la amul solo mu jug dem mais tamit maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla bu ma benn gàllankoor ci làmb ji. waaw koy ñaanal bu baax a baax a baax appart laa làmb dara ay Baay Faal lañ ay jullit lañ ay góor lañ. waaw mais loolu daal jarul wax lu mu wax ci làmb ci jarul wax voilà. benn tàkkusaan moo leen boole ku nekk di jàmm nga ko yéene jàmm la lay. waaw justement justement yéenuma ko dara ay. budul moom sax budul moom sax yéenuma kenn dara ay. ba waaw lu muy lu ma yéen nit lu baax lay doon ñaanuma yàlla yéene nit lu bon kon ñu ngi lay jaajëfal. Euh, ci yéen ma leen di masawu coono di wax ne yéen deuxième personne bi ñëw pour interview ma xam nga may santaat leen bu baax a baax di nuyu bu baax a baax a baax di wax ne sama ngénte li dimanche samedi incha allah yéen laa njëkk invité. invité naa leen te na ngeen ñëw. kon soxna si daa am kenn du ko waxati. Hmm. waaw na tout temps ma tuddee ko sama frère mbay hmm. waaw mais daal invité naa leen na ngeen teew. bu soobee yàlla lu mu laaj rek wax lañ ñuy def bu soobee yàlla ngeen teew incha allah kontaan nañ trop. ñoo Jurbel la Jurbel la. kon invité nga Sénégal gépp ñu ñëw ci ngeen. invité naa Sénégal gépp invité naa Jurbel gépp na ñëpp ñëw. ku ñëw di nga lekk bu waaw ñun ay donc lañ ñun njëkk ak joxe rek benn lañ xam. waaw Sénégal gépp fan la waaye yow da ngay laaj yow da ngaa mës a gis Touba wala Njaaram ñun ko fa ñëw te xamuñu ñun benn rek lañ xam. Ah. bernde rek lañ xam joxe lekk rek lañ xam donc ndogu yi dañuy ñëw génne suñu kumte xam nga ñëw togg ba mu neex te dugg suñ génn ñu dem yóbbu ko jox ko ñu woor jébal ko waa kër suñu muntaxaay waaw taw feex ñu ne Baye lan joxe rek lañ xam waaw taw feex ñu lay jaajëfal waaw ma jaajëfal leen bu baax a baax di leen mosaw coono di leen jégaluwaat waaw di leen ñaanal seen ñi dem ba nekk xam nga wasaare lamb TV waaw mu dem ba nekk tele waaw ñëpp yëg seen bopp ci barke Seydina Muhammad tibbee naa ko sama xol ñaanal naa leen ko yal na yàlla suñu borom defal ci barke Cheikh Raval dégg nañ trop. jërëjëf mbokk yi kooku mooy Eumeu seen junior macha allah xale la boo xamante ne bàyyi leen ko xel ci làmb démb wane na boppam ci làmb tey Eumeu Sène junior toll na koo xamante ne kum ne damaa bëgg a bëre moom rek boo delloo ginnaaw rek danga koo xale la mais bàyyi leen ko xel ci làmb moom lañ leen indiloon di leen tàggoo tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba léegi incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaajëf Mbar. dégg naa kontaan naa trop jaajëf jaajëfati incha allah jaajëf.